saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey ba léegi fekkaat fa Balla Gaye 2 Eumeu Sène Modou Lo ma journal bay laaj ba xam kan moo dàq bëre ci ñoom démb sunu làmb da ko laaj amateur yi waaye tey techniciens yi la ko laaj diggante Eumeu Sène Balla Gaye 2 Modou Lo kan moo ci dàq bëre xëy na laaj ko technicien kàngami làmb ya mu taseel bokk na ca maam lees bàyyi ngañ ak mbay ñing ñetti kàngam yooyu ku ci nekk addu nga ca wax sa xalaat bu dee maam lees kot su la mu xamle mooy Balla Gaye 2 moo mën Modou moo mën Eumeu Sène Balla Gaye moo dàq moo dàq bëre Eumeu moo gën a technique Modou moo gën a technique Eumeu Sène Eumeu waaye teewut Balla Gaye 2 ko dàq bëre moom la leen ëpp courage dàq leen bëre gën leen technique rax ca dolli ne moom Balla Gaye 2 ñi mu bokkal génération amutoon kenn ku ci ñeme woon bëre ak Yaxya Jóob Yékini wala Tyson ci ñooñu Balla Gaye 2 da leen fekk fa ñu nekk ak ca la nekk daal di leen fay jële te boo xoolee combat yi mu perte da xam ne Balla Gaye 2 wérut mbay ñi ngi ko su tafaati ne li am ba des daal mooy Eumeu Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 mënuñoo rivaliser mbër mën naa daan ku ko mën daan ku mu mën te diggante Eumeu Sène ak Balla Gaye 2 da ngay gis ne Eumeu Sène daan na ko ñaari yoon waaye Balla Gaye ko mën te diggante Modou Lo ak Balla Gaye 2 moom waxeesu ko moom techniquement tactiquement et sur le plan de la lutte simple du ci moroomu gaay yi ñoom ñetti techniciens yooyu yépp li ñu wax mooy Balla Gaye 2 du moroomu Eumeu Sène du moroomu Modou Lo waaye foofee nag rëg-rëg da leen a weddi ba ñu set wecc fa maam lees ak mbay ñi nga bàyyi ngañ jaar rëg-rëg dafa ñëw jaar fa ca des la rëg-rëg xam le mooy Balla Gaye 2 dàqu fee bëre Eumeu Sène dàqu fee bëre Modou Lo dàqu fee bëre lamb ji ki fi dàq bëre man la Balla Gaye 2 mi ñuy wax wax maa ko dàq bëre foofu man rëg-rëg maa ko wax isasim lamb ji amul kenn ku ma fi dàq bëre ci la ko laaj comme yaa fi dàq bëre boo doon taxawal sa combat yaa lay doon mu ne leen combat bi may teree ne la bi ma neex mooy sama diggante ak Sa bile combat saa yu déggee ne taxaw ne danaa fecc fecc yu rëy bile combat bu taxawoon tey danaa organiser tànn béer lu waral nga ne sa combat ak Sa moo la gën a neex mu ne Sa Thiès bëgg woon gaay

danoo match nul beneen combat ba match nul mu ngi xewee woon ci arène nationale le 7 mars 2020 foofee bu olympique de moo doon jàkkaarloog Tafaleer 2 bu Grand Médine mbooloo loolee la ñu ci ay match nul ci saison bi ba ca des boobu combat annulé la combat sans verdict ba diggante Mori Cargo bu saako xam-xam la woon ak Cheikh Super jamono bu Mor Fadam saison 2019 2020 lii la jot am ci ay match nul